waaw xam na moo tax Médina TV parce Kanaara la ñuy def li ñuy def lamb bu ñu ko waxee lamb compétir la yaa ngi lamb waaw du dara du violence du dara mais ñun dañoo bëgg bébé jën man boo ma laajee lu ma def si ma wax la ah, bi lan la. troisième bi biberon bi xoolal ko boobu bu ñuy léewtoog ama nakari la pour jàpp ko daan ko dóori ko dóori. am ngeen combat ñun ragaluñu loolu xanaa gisoo commando bi donc bisaab la day yëpp. gisoo course bi. Eh, ñun Bébé Diène rek la ñuy topp barki Sëñ Touba Mbacke.